doomu aadama am na nu ko yàlla bindee ci ay xam-xam ak ay énergie kenn ku ci nekk xam na ne benn am na ñaar am na ñett am na ba juróom ba juróom ñeent chifre bu ñu jëlaat rek yii lañ taqale pour mu nekk dara soo demee ci benn mu ngi dem ci kenn yàlla boo demee ci ñaar mooy saahir ak baatin mooy jëm ak ruux mooy kaw ak suuf mooy leer ak lëndëm boo demee ci ñett mooy démb tey ak ëllëg mooy zikru mooy fikru mooy tawhid mooy li yàlla di kaddu jibril nangu ko mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo àggee ci ñent mooy kat yaa ngi ci maqaama allah maqaama allahu ñeenti taxawaay muhammadu ñeenti taxawaay dimbalay faal yërmande adduna bi yëpp ñeenti taxawaay la siège yi ngeen yor sax siège yi ngeen toog ñeenti taxawaay la siège bi jëmmi doomu adama di toog ñeenti taxawaay la jëmmi doomu adama ci boppam ñeenti taxawaay la jëmmi doomu adama ci boppam waaye xamu ko nag moo tax yàlla ne xool leen secret bi mu ngi ci yéen yàlla nee na seet leen mbir mi mu ngi ci seen bopp lan moo nekk ci sa bopp sa nurhim ayatina ay aaya la wax nag ay kéemtaan waaw bu doonoon bu doonoon taw bi lay wax dina jar ñu xool ko a ah, taw bi ñu koy gis de asamaan ñu ngi koy gis suuf jant bi lépp lu fiy xew muy manifestation euh, ci ci xaal bi wala ci suuf si fépp ci planète yi ñu ngi koy observé normalement. waa léegi lan moo tax mu ne sanurihim ayatina fil afaaqi maa ngi leen koy misaal misaal kot la kot misaal mooy kot ku ñu lépp mbir am nun la ko waxee boo dul nandite doo ko doo boo déggee ñu naan la nante la nag mooy dafa am fu muy xalaatee foo dul xalaatee yow. xel moomu nga xam ne mooy xalaatee noonu kan la ak fu ñu koy jëlee mu ngi ci ilmul maarifatu billah géej googu la ñuy wax tasawuf kon soo nee juróom mooy ñaari tànk ñaari loxo ak bopp ci nit soo nee juróom benn mooy fi sittati ayamin suma istawa alal arshi yu darirun amra sittati ayamin mooy waahid isnayni salaasa arbaa xamsa sitta mooy sadder bi yàpp bi sidit bi yax bi yuq bi ak kawar gi bu ko defee yaa ngi ci juróom menn waaye suma istawa ala arsi mooy juróom ñaar juróom ñaar nag juróom ñaar ci asamaan yi juróom ñaar ci suuf yi juróom ñaar ci géej yi boo demee ba àgg ci juróom-ñett yaa ngi ci xaqiqatu ak shariatu yaa ngi ci ilmu nubuwa ak ilmu shahada yaa ngi ci Allahu ak Muhammadu yaa ngi ci kaw suuf yaa ngi ci biir ak biti yaa ngi ci xadratul ilahiya ak xa ak xadratu muhammadiya nit ki loo xam-xam yàlla xolal da ngay soxla soxna di lekk di naan di tëdd di yeew dox say soxla te xam nga yàlla ak nga ci yàlla te jeex nga ci yàlla. waa léegi loolu nu mën a nekke jeex nga ci yàlla ba pare di soxla loolu moo tax ñi koy weddi ne xamoo leen egoo leen ci yàlla parce que da ngeen soxla ñun li ñuy soxla xamuñu ne ah dégguñu yàlla. yaram ñu faal ñu jaamu la kon nag loolu mooy mbir mi. yàlla wax na aqimi salaata li zikri aqimi salaata li zikri julli di ndax ñuy ñuy fàttaliku yàlla waa léegi ki nga xam ne dafa gëmm di concentré wu di imaginer benn image nag an taabudullaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka si tu es en train de prier si tu es en de prier bu fekkente ne yaa ngi julli Tu dois faire comme si tu voyais Dieu. Mais si tu ne peux voir ce dernier Allah, chasse carrément que Allah est en train de te voir. yàlla mu ngi lay gis bu fekkente ne gisoo ko moom mu ngi lay gis fa nga ci toll waaye da ngay imaginer yàlla nag amagoo dara lu concret xoolal yaru sang ñaan li muy def xoolal xam-xam ni mi ci tasawuf ni mu mel te lii may wax amul benn téere bu koy jàngalee amul. waaye lu yokku ngëm nag jar naa xam mat naa xam mat naa xam moo tax zikr zikr di fàttaliku yàlla ci làmmiñ bi lay tàmbalee ñëw ci xel mi waaw kon nag baatu i iqami salaati li zikri ci laa ilaha illallah lañ koy fekk laa ilaha illallah fukki araf la ak ak ñaar soo ne allahu akbar soo ne allahu akbar yëkkati nga say loxo neel benn mooy benn boo ne allahu akbar yëkkati say loxo danga nga naan loolu benn la nga teg sa loxo ci sa óom boo taxawee booy julli boo taxawee am nga benn nga yëkkati say loxo am nga ñaar nga teg sa loxo ci sa om am nga ñett nga sëgg am nga ñeent nga siggi am nga juróom nga teg sa ñaari oom yi ci suuf am nga juróom nga teg sa loxo juróom juróom ñaar nga teg sa jë ci suuf si jot juróom ñett nga siggi nga sëgaat nga siggi fukk ak benn nga taaya mooy laa ilaha illallah mooy fukk ak ñaari salaamaaleykum wa rahmatullah